صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر weeru safar bi kuréel yu bare ci Touba ñi ngi koy jëmmal ci anam yu mucc ayib yu ci mel ni waa ahlu tuxfatu mutadarayin ci Touba wa kaana li bil afyadi allahumma lil karami fi sirri wal halaniyati ومن الصالحين المصلحين بك يا الله إلى دخولي الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان للخدام الحمد لله الذي يجازي

للانتي خاب بك فاب برسني قصصا من وقد للبخام ما سفا قداري لم يغسل الكليم خادت لأحمد الذي أراد لأحمد المختار من سل العلم وسل الحياة سبخ دون سلمي دعا نبي للعلي سي سمحي أسر جلالي يا منتعالي يا خير والي أجب دعائي يا ذا الجلال يا منتعالي يا خير والي أجب دعائي ni ko sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim santaane woon ñu ngi koy amale noonu si jàngub alquranul karim yëkkati ay xasida joxe ay berde daayira yëpp teew nanu ñu nemeeku si mag ñeek ndaw ñi kilifa yi ba si nag tuut tànk yi ñëw naka noonee nag am na tamit ay kàddu yu fa jib di kàddu seede maanaam am nañ ci mbégte lool mag ci koñ beeg am nañ ci mbégte lool ñoom ñëpp kontaan nañ ci ndax mag ñi ngeen ko defal ba tax na lii ngeen di def rafet na lool maa ngi leen di ñaanal daal yàlla ngeen yàgg koo def ak ah, ba seeni set ak sëtaat di ko def. lawal ka nag ba ci guddi gi ñu amal fa ay jàng yu am solo Moustapha sekk ak yeneen daayira yëpp teew. سعادة ولنجاة وعلا وإنه لكتاب عزيز وجع ربي لخير من بها تعلق حسن يلاخ الأخبياء أكرمهم ربي بأنهم معاه ينجون من نقم باخ خما نفهم دنيا وأخرى نافعة بما بي تأتيهم المنافع نجاهم الباخي من النيران من له سخاوة إلى سواي ولي التلاوة وجاء ربي لهم بلا انتهاء بعد الممات كل خير يساء لكل من بيه تحلق النجاة من كدر الدنيا وفي يوم النجاة كل مريد بيلوس يصعد وإنا من العصا مبحد ginnaawu jàng yi waxtaan tamit bu am solo amal nañ ko jëmale ko Serigne Touba. suñu nee na bi ma génnee ndekete ci mbedd la mu xat moo xam ne dara xaju fa ne ñoom ñëpp ñu tàmbalee reetaan nee na nag wi riir jëm si sama kaw. ma tudd yàlla am lu may ma ko muy naaw mas naa toog njaarim di wax ci nag woowu ñu ne ko ana nag wi mu ne ba fii may wax ak yéen mi ngi naaw àggagul fa mu jëm lu dul dañoo taxaw yow mal xiyaama ci làkk ba am na naar bu ko mas a laaj bu bokk ci alawi yoone yi ne ko ndax keroog bañ leen nag wi mu jëm ci sa kaw yëgoo dara ci tiitaange sëñ Tuubaa ko maay jaamu yàlla boo xam ne lu rot ci samam xel lu dul yàlla maal maanaam lu ne ñu di ko jal ci sa kaw te waxuma la nga tiit waaye sam xel lu dul yàlla bu ci rot huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin hada wala wala lépp yàlla la ci gis moom suñ tubaab la ko topp ba bi ñu koy jul bi muy julli ci ndox mi suñ tubaab daana wax ne bi muy sànni deram di ko fekk amul lu ko leer ci ne dana dana ci biir ndox mi wala ci diig waaye waxtu boroomam bi moo ko jaral waa ahlul tuhfatu mutadarayin am taxawaay bu am solo si Touba rawat na seen gox bi di Daaru Xuddus Kër Wele li nag di lu njëkk ñu fas yéene ko wéyal si biir safar wi amalaat beneen bés bi nga xamante ni dañ koo jagleel weer wu tedd wi ci wàccaayu màggal Touba édition 2019 salaatu lazi fi هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر